ab mbégte bu rëy la mandataire u Déthié Fall ak ay àndandoowam génnee conseil constitutionnel. jiiteelu PRP daal jàll ci étape parrainage yi. ci 58 975 yi ñu déposé li ñu tuddee rejet pour automotive 1100 lañ ci am mooy erreur yi nga xam ne peut mën nañ nangu li ñun ñoo ko def 1100. am pratiquement jamono jooju kii di Marito ñaan moom dañoo daal di rejeté li ko waxal lu ëpp juróom-ñaari fukki junni parrain yi nga xamante ne xàmmewuñ leen ci fichier électoral bi. beneen candidature bi nga xamante ne rejeté nañ ko di bu Aminata Assome Diatta mu nekk li nga xamante ne mandataire mi ngi koy ñaawlu. xam li ñu liggéey da euh, ak euh, liggéey bi nga xamante ne dafa jaar yoon mais nag comme li ma li ma ko waxee sànq nii rek nit bu la bëggee daanal même boo duggee si pax sax dana loqati comme ça mu éliminer la dañ ko ragal bu baax a baax ndax seen biir la nekkoon xam nañ de quoi elle est capable. cas bu xaw a particulier mooy bu candidat El Malick Gueye leader coalition Natangué Sénégal nag dafay daal di xaar. mais bi ñu duggee ci biir conseil constitutionnel def nañ ko ci biir salle bi. fii cette charge yi nekk def nañ fa lu ëpp une heure de mais ñoom ils ne parviennent pas à charger le dossier. ma ne ko léegi le président du conseil constitutionnel nañu bindal wax ñu dañu invalider wala dañu valider comme mënuñu transférer suñuy document mu ne non non la décision après 93 candidats yi bu ñu jàllee pare dinañ bind une décision du conseil constitutionnel. keneen ki nga xamante ne ñoo ko doon xaar tey ca conseil constitutionnel di mandataire Ousmane Sonko moom nag teewu fa jamono ji. dafa war a xaar ba 92 candidats yépp jàll ñu soog a xool dossier wum